combat bi début bi noonu rek lay dem Balla day xaar mais day mébé bu mébee bu gisul Modou day ñëw bi mu karee Modou Modou def na li mu war def mooy arrière kam doon bañ mu arrière bi mu arrière Balla kar ko bi mu ko karee mënatul dem Balla bloqué foofu ba pare bëreeg moom bëreeg moom dóor ko mu tarxees mu jóg moom it gëréel jàmbaar la mu jóg bi mu jógee fa mu waroon a jàppale jàpp jóg na ba am sax dara mais bala xañ ko lépp Balla moo taxoon Balla ni tekk dal ni xaaral naa taxaw kii bu ma prox proxee da erreur mën na am naa taxaw mu taxaw patienté déglu ko déglu déglu déglu si biir déglu bi muy gis ni moom mi ngi gën di jekku moom Balla mi ngi gën di jekku di gën di jekku Modou dem na ba jël loxoom ci boppam teg si genou pour mën a am appui kon moo foofu mooy wane ni Modou il était fatigué ci biir affaire bi sonn na léegi Balla continuer continuer continuer ba ñaari loxoom nag am ca ginnaaw ngemb mais non, mu ne yëkkatee pas lay ne ni Balla am na utiliser faut utiliser doole ak intelligence. non doole bëre mën a bëre technique. loolu la wone kii vraiment am ndam. Modou am na faay ci bi. Modou am na faay bien sûr faay bi mooy indiwul doole. Oh. indiwul doole dañu indi woon contre Gris Bordeaux ko fi. li mu indi woon contre de mu ci wut lu mu ci ah, bu dee ci biir bëri bi tam amul benn benn fenn fenn fu ko Balla Gaye may pour mu am occasion daal. mais papa la moo bi un peu euh, mooy Balla gañe na Modou Lo ko a xaar ci prochaine. non dama leen Modou mi ngeeg avance Eumeu Sène Eumeu Sène mi ngeeg avance Modou Lo Balla Gaye day seete keneen mais Modou Lo ak Balla ak Eumeu Sène taxaw na dëgg la